salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi king baa ngi nii king baaba démb dafa wàccee firen si ba firen si wàcce dafa nooy sama doomu ndey sama xarit rappeur bi gën a ay waaye yow maa la gën a bëgg rappeur bi nga xamante si ni moo tax ñuy wax rappeur mooy koo jox marakis mu di ci rab nga jox ko xaalis mu rap eh, poset mu rap nga jox ko ah, ay wee mu rap boo ngaaka boo wekkee woon sa tànk bi sa jox ko ko mu rap beeke mu rab sa waay na leen waxante dëgg waay rappeurs yi da ngeen di xam kan mooy seen papa nekk fii di tararay dafa yomb yor microphone bi maatee réew mi nangam nangam rab nangam rab dan koy man booy bi boo wekk woon lampe bii may xool nii bii ni ñu leer lii wekk ko jox ko baabu mu rabale sa waay nan waxante dëgg waay damaa bëgg jamaa dafa rab ban may ko jamaa jaaro jamaa jamaa lan ko takkal jamaa loolu man mosuma koo gis ñu defal ko benn rappeur Sénégal mu ne jaaro jamaa bi du ko takk sama jabar laa koy jox muy faatal ah, ah dafa waaw moo ko moom dégg <laughs> dafa wàccee dafa wàccee feneen si wàccee Allemagne tournée yi des na de des na Allemagne Canada king baa ngi nii daal amul dara dara dara.